assalamu salaamaaleykum wa sa Mobile TV té eh, eh, di ñëw tay ci une nouvelle vidéo té dañ leen woon tay nak ngeen di def ba buñ leen di woo téléphone bi di wax touru ko lay wo ñu bari ñu ko doon demander manam pour buñ leen di woo wala buñ leen envoyer message ñu bëgg muy wax ki nga xam mo leen envoyer eh, message wala ki nga xam mo leen di woo te loolu lañ bëgg ñëw te di leen ko wan. aussi tamit amna ku doon demander commentaire na nan la mëna def ba buñ koy wo wala buñ koy envoyer message flash flash téléphone am bi di tak wa flash bi di tak quoi. aussi tamit application bi ñu leen di présenté mën na ko quoi mën na bu lay woo muy wax turu ki lay woo bu ñu la envoyé message muy wax turam jaar ci numéro am aussi boo bëggee bu la neexee tamit flash bi mën na di tàkk oui te loolu la ñu bëgg ñëw tey présenté leen ko ñu leen wax ngeen abonné ci chaîne bi activer cloche bi oui loolu boo leen ko bëggee c'est facile da ngeen di ñëw comme ni ngeen ko xamee seen Google Play Store maintenant Google Play Store la ñuy dem comme d'habitude bu ñëwee nii ci Google Play Store maintenant dañuy ñëw fii ci barre de recherche bi gis ngeen. bu ñëwee maintenant ci barre de recherche bi lii la ñuy bind li ngeen gis nii ci kaw mu nekk car de SPAC oui mooy maanaam euh, identification euh, euh, l'appelant en haut-parleur mais maintenant bi la bind quoi li ngeen ko gisee ci kaw premier résultat bi car id SPAC gis ngeen ko maintenant bu ñu ko bindee waaye application bi moo nekk nii gis ngeen ko application bi la ngeen xàmmee ko car id SPAC oui moo nekk nii maintenant gis ngeen ko. photo yi moo nekk oui gis ngeen photo yi moo nekk maintenant bi moins photo yi ñoo nek ni oui application bi ni moom la ñuy télécharger bu ñu télécharger par maintenant dañuy def ouvrir gis ngeen bu ñu defee ouvrir nii lay mel gis ngeen léegi da ngeen def continuer ñu def autoriser defaat autoriser léegi ñu patienter bu ñu defee autoriser maintenant ñu patienter fii lii la ñu wax. Pour utiliser la fonctionnalité d'identification de l'appel, nous, avons besoin d'une autorisation. Maintenant, nous devons continuer. Oui. Maintenant, nous nous l'application. Nous devons activer. nous devons retour. C'est comme la caméra Nous devons maintenant affaire de la comme vous la annonce désolé Fini annonceur l'appel fa la cliquer maintenant bu ñu fa cliquer gis nga fii nii heure initiale bi retapé pour maanaam buñ lay woo mu def 2 secondes da nga ko yóbbu ba 0 seconde maintenant ngeen def sécurité maintenant c'est bon oui léegi ñu wàcc tuuti ñu xool appel bi en attente bu wéy bu la neexee mën ngeen ko activer fii annonce le nom seulement wala mu ne annoncer uniquement euh, le l'appelant non ou le numéro bu la neexee tam mën nga ko activer.

oui gis nga fii répété la maanaam temps bi nga bëgg mu répété ko deux fois trois et cetera oui j'espère que foofu activé nañ ko waaw léegi ñu xool annonce bi dafa mel ni euh, répétition bi xooluñ ko désolé ñu xool waaw léegi gis nga annonce répété fii nii gis nga fi far naa kon gis nga quatre fois par défaut gis nga quatre fois la nekk par défaut maanaam turu ki lay woo dafay wax quatre fois oui j'espère que comprendre ngeen ko. Hmm waaw wan nañ leen SMS euh, euh, annonceur waaw pour ki doon laajte flash bi waaw fii nii la lampe bi gis nga fii nii da nga koy activer bu nekkee appel flash bi day tàkk aussi bu nekkee SMS flash bi day tàkk bu nekkee notification flash day tàkk maanaam notification euh, yi ñu lay envoyé WhatsApp et cetera gis nga fii modèle bi gis nga maanaam bu fekkee ngay bëgg muy tàkkee nii wala nga bëgg muy tàkkee nii et cetera. wala pop bi gis na wala et cetera rapide bi ma duggati j'espère que comprendre ngeen ko bu la neexee tamit mën ngeen ko bàyyi rin rin bi maintenant ngeen def sécuriser j'espère que nombre de flash bu fekkee 3 nga bëgg euh, notification bu fekkee 3 nga bëgg mën ta bàyyi 3 bu fekkee 4 4 et cetera j'espère que foofu c'est bon batterie bu viddee tamit nekk 15 dina la ko flashal léegi dañuy def retour oui j'espère que c'est bon waaw maintenant application bi c'est bon maintenant légui légui dañuy def appel bu ko défé ñu test ko ngeen xol gis na maintenant dañuy def appel bu ko défé ñu jéem a tester application bi xol ba xam mu ngi fonctionner wala fonctionner wul maanaam bu ñu wootee. ba xam dina ba xam dina wax turu kii woo et cetera jël beneen téléphone bi maintenant ma def appel maintenant maa ngi def nii appel léegi dañuy vérifier ñu xool naa ma def appel ñuy vérifier xool léegi baa ngi dem. Sen Mobile TV. j'espère que dégg ngeen ko.

bu ko defee ma defar appel ngeen xool xam nga pause bi déjà maintenant dindi naa son bi bu ko defee dama koy woo bu ko defee xam dootul sonneeti bu ko defee ngeen dégg bu baax euh, kii bi nu muy waxee tur bi j'espère que astuce boo leen ko appliqué léegi dina wax turu ki leen woo ngeen bëgg nu mu koy waxee désolé. Sen Mobile TV. dégg ngeen. Sen Mobile TV. j'espère que yéen a ngi koy dégg. Scène mobile TV. Oui, ni le quoi dis ngeen. Scène mobile TV. ni le quoi j'espère que comprendre ngeen ko. j'espère que comprendre ngeen astuce bi ni muy fonctionner aussi tamit bu ñu envoyer message euh, euh, c'est la même chose vous pouvez bëggee envoyer message aussi ñu envoyer message ñu xool ñu ko mool ñu xool ba xam oui ñu SMS from Sen Mobile TV thank you. oui j'espère que gis ngeen astuce bi ni lay fonctionner aussi. SMS from Sen Mobile TV thank you. oui ni lay fonctionner buñ la envoyer message dina ko répéter buñ lay woo dina répéter waaw aussi tamit non la flash bi boko activer bu lay woo aussi bu ñu la message dina tàkk j' espère astuce bi neex na leen ñu leen wax ngeen abonné ci chaîne bi activer cloche bi pour di mën jot suñuy prochaine vidéo